ndax dama nekk taalibe boo xam ne dama yaakaar ni sama heure moo jot ndax loxoy Kajoor dañuy weesaloo dama jàppale Macky Sall ba mu falu faluwaat mu ne moom bokkatul ma gis ne ñëpp ñu teg maa ci mën xam nga wax sa bopp daa metti maa ci njëkk nekk ministre candidat yi may dégg yëpp candidat yi dégg yëpp maa ngi njëkk a toog conseil des ministres yi ngeen dégg yëpp laa wax ba may dégg ministre xa xalaatuñ sax dina nekk ministre ba may nekk député di liggéeyal askan bi ba ñu tuddee ma député du peuple l'homme du 23 juin ñoom fu ñu nekkoon dégguñ sax boobu honorable député ma ñëw doon ñaan seriñ bi mu ñaanal ma ndax am naa yaakaar gëm naa ni sëriñ Touba moo yore caabi yi ubbi di faj soxla yi kon ba bu ma ñëwee fii ci kii Serigne Touba actuellement Serigne muntaxa Bassirou mu ñaanal ma sëñ Moustapha la kare ma fasaale loo bëgg muy sama xarit ma ñaan li ma bëgg damay ñibbi ak njott bu rafet yàlla nag mooy fal.